yaakaar naa ne ñu ngi fi nga xam ne moom moo di Medina di ëppal presse su Diène waaye nag dañoo toog ak kenn koo xam te ne suñu papa la moom si ñuy ngénte ci la bokk papa maa ngi lay nuyu di la ziar. Eh, di la fay di nuyu mes enfants cameraman di am mbégte rek ak kontaan ci teewaay bi nga xam ne ñëw ngeen ko fii ci open press yi di am kontaan lool nag macha allah. tey ñu fekk la ci open press yi te ku ne xam na ne Diène daaw dafay open press yi. ndax fii ñu ci ba bari ñu ngi naan day xat yooyu noonu lan moo waral ngeen indi open waaw li li tax ñu indi ko rek mooy que am problème espace rek parce que préfet bi moom stade Iba Mar dañ ko interdit woon dañ ko tëj. xam ngeen boobu tey làmb que tey si euh, Dakar recevoir nañu. recevoir nañu vraiment jox nañu stade bi léegi. waaw jox nañu ko léegi parce que pour dire vrai euh, xale yi seen open press xajatuñu. seen open presse xajatul ci bayal yi parce que ñu amatuñu ay bayal amatuñu bayal comme banlieue bi ni ñu ko amee am na benn star lañ fi te dañ ko moo ko tëjoon ngir ay violence gaz miir xam nga ne nag léegi dafa dafa laaj mobilisation dafa laaj open si yenn kese yu mag yi mu déglu ñu daal di ko nangu ne ba suñu tey ubbi naa stade bi nag pour bi demoon foofu day xaw a jàmp te comme ko defee fii maanaam du hasard li lii bi lan la lay fàtte non li may fàttali bi ma doonee xale rek fii ku fi dëkk da ngay dem géej da ngay gétti da ngay joo da ngay lu ne ngay def ci géej gi moo tax lii lii daal mën naa la fii lii du hasard tey waaw ma dem ba àdduna di wax ba tey sama doom war a takk dem bëre ji ñëw def ko fii non lii du hasard nga jëm ci combat boo xam ne nii combat bu doy waar la muy Zarko retour de Zarko gis nañ ko ñëpp muy ci état mi ci dynamique de victoire yi nga xam ne dina toog jën kay rek Euh, jigéen moom dañ koy jolli rek parce que làmb li euh, maanaam bëre liggéeyam la a chaque fois moo ngi ci jógewoon ci combat bu rëy war a am fu mu dem loolu antuwul mu toog nekk ci comme di liggéey Zarko si def benn retour gagnant amateur yi soxla ko promoteur dox ko mu nangu donc ñun li ñu bëggee wone rek incha allah ñëw dañu bëgg a ñëw confirmé waa dimanche incha allah te yàlla nañu ko yàlla defal ñëw confirmé ne yii mu jógee yëpp. confirmation la war a doon ci moom liggéey nañ ko physiquement moralement mentalement lamb ji nee naa bu leen léegi pare nañu lamb ji bu leen léegi léegi pare nañu yéen du mbër mu ñu sax conseil lu bari xam na li mu bëgg xam na fi mu bëgg a jëm xam na moom mooy kan lamb yi mos a bëri amul benn benn benn moromam bu ko mos a gëtam ci géew mosul am kenn ko defoon tey tey tey mooy Youssou Ndour Balla Gaye maa ngi koy nuyu moo ko mos a ëntoon te demee mais bu dee xam nga tamit li nga xam ne moom moo di capacité yi nekk ci Zarko mm-hmm. est-ce que xam nga ko yéen a koy sóoraale waaw bu baax Zarko bu baax a baax xam nañ ko bu baax xool nañ ay combat xam nañ ne jàmbaar la guerrier la ñeme na foofu takk fit bi ëpp na ko te it mën naa bëri loolu kenn waxatu ko waaye nag kii kii dafa di leneen jigéen leneen la ah waaw leneen la leneen la ci biir saa yi bu dimanche la ñuy xam ne la bu soobee yàlla. ma dégg Sarko di am benn slogan bu muy wax. daan na la boo ma ñemewoo boo nga xamee ne ñemewoo Sarko war a ci woon a dugal sa doom. bataay sugu la sugu la rek. Ah, xam nga la sugu la rek waaye xam nga ne moos. jéem moom nee naa la fu fit mi fu ko fit lu mu ñeme da koy jëli. kon natt fit yu weesu la. Ah, bu dimanche ñoom ñaar ñoo des si géej bañ dongali. 19h xam nga 20h. arbitre bi woo leen ñoom ñaar ñu dongali. mun a jàkk jéen jéen la ko jàkk. Ah! waaw waaw après nag. mais père yaa ngi wax ay waaw mais boobaa nag nit ñu xool àtte. yaa ngi junj lan la. waaw waaw li may junj kay mooy li ñu liggéey rek. mais Zarko nee na combat a dépassé. non man làmb mënu ma dépassé dinaa la wax lay man. jéen jéen moo ëpp mental bi may bëre jéen moom mu ëpp mental man bi may bëre moom moo ëpp fit yàllaa ko defal loolu na xaw ma lan la. gis naa keroog mu wax ma ne la papa lii du dara. moo déggoo li la. bu leneen la sax mën naa koo sagoo. loolu gis mais loolu la def. Uh-huh. la Zarko tuur foofu. waaw dafa pause mu ñu mu jël loolu këppoo ko. waaw loolu loolu. bu ko defee nan nan la def. mais sañ bi nekk ci loolu yàlla ko defal loolu mënu ma wax sax xam nga xëy ñëw mais yàlla yàlla defal rek mën nañu xalaat dimanche arbitre na firi ji jéen dagg jéng yi fekk si Zarko xeex ak moom dinaa la wax de bëgg xeex bañ xeex ah! bëgg xeex bañ xeex dana xeex dana bëre jéen dafa war a wane boppam ñooñu ne ku ñu laaj nga daw bañ mooy ko Zarko jër ñu ñu ñoo xeexee man tey loolu loolu du am ci làmb yàlla non loolu dafa am cey père nga ne bëgg xeex bañ xeex. bëgg xeex bañ xeex. bëgg xeex bañ xeex dina bëri dina xeex. dina bëri dina xeex. ana lan ngay wax autorité yi nga xam ne ñoo nekk Medina. waaw autorité yi ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo rek ñu ngi woo ñoom xam nañ ñu leen war xam nga sax nga doon autorité ñu lay woo sax léegi pour man du lu normal. ci koñ bi nga dëkk ci ci gox bi nga dëkk lii da ko war def def leen ko rek mais daal en tout nañ ñëpp pour ñu ñëw jàpp ci bés bi waaw ñu ngi rek ci dernier réglage yi waaw ñu ngi si dernier réglage yi bu baax a baax a baax ñu ngi si dernier réglage yi en tout cas daal li ma leen mun a wax leen ko ñun pare nañu te xel dal la waaw bu baax ci wàllu mobilisation ku xam vers vers yeeg yooyu bu dimanche ñu ma leen gis leneen bu dimanche. waaw ah, ngeen gis mobilisation. lamb loolu moo tax ñu naan eh, eh, eh, nga indi ci yenn si bu dimanche mbaxane dina bëri ci kaw de. ah gërëm père yi. waaw waaw macha allah si carrière carrière bërëb ba ñu ko attaqué tey bis yi ñu ne ko soxla. tey tey lii bi mu koy defee lay fàttali. Dakar ñoo ko soxla kere jën kere doomu Dakar la jën jën kere doomu Dakar la fukki peccee ñaar yëpp bu toog deux ans bëriwul loolu métti li mu wax sumu jub tey yi def pour ñu ñëw kere tey da lay fekk si biir xamal Zarko na du xeexee ma duma ko daan. ah. Zarko ngeen am de. yéen Zarko du xeexee ma duma ko daan ko. Zarko ngeen am. Zarko moom lu muy wax gëmu ko. daanaan la de na fexe bu mu yor. na fexe na bu mu yor. Zarko est-ce que dina yor yéen da ngeen ko yore revanche di jël ci revanche. Zarko euh, bi léegi dëgg dugg Medina nga dee xale bu caay caay. nee mooy mooy Ndakaaru de moom Zarko. Zarko euh, euh, ah jën fukki penc ñaar yaa ngi de. dëkku dëkku lépp mi ngi si ginnaaw Diène Kaïré Ndakaaru tey Ndakaaru ñoo ngemb Diène. Ndakaaru Ndakaaru ñoo ngemb Diène Kaïré. tey lan man lañ man lañ mën a xaar ci mobilisation. mobilisation euh, ñi ngi woo suñu autorité yëpp vraiment ku xool ku mel ni ku mel ni Cheikh Tidiane Ba nee na nee na dina jënd billet yëpp di woo Medina dem ay ay Mika yi Mika yi ñoom ñëpp nee nañ jënd jënd billet yi jox waa Medina yi Ndakaaru dem suñu dëkk bi yëpp ñu ngi toog tey jii doo xoolee lébu yëpp ñoo tey tey ñu géej ñu wàccee gaal yëpp. Ah. gaal gaal da leen wàccee tey. waaw jënd du manqué jënd xool xool leen tey jën amul tey ku jënd jën doo doo xam. Ah. jënd jën c'est très dangereux. jën kay rek jën c'est très très dangereux. maa ko njëkk bu parcelle takkal ko ngemba. bu bëree mu jàpp jës son jàpp ko daan muy booy booy booy jàpp ko daan ko jàpp ko ñaa jàmbaar leen jël egg na nag. bu dee Coence. loolu Coence. waaw xam nga wax Zarko jaaxalu ko. Zarko jaaxalu ko. mën nañu xalaat bu dagg jéngi xeex. non Zarko bu mu xeex. Zarko bu mu yoo ñu koy xaar. lu mu bëgg yëpp loolu yoonu fekke xale bi. maanaam c'est très dangereux. loolu lay xaar na teg rek di kaa am na teg suñu kaa mu xeex. suñu bi kaa waaye am na jërëjëf beneen nga teg leen kaawam nga teg leen kaa bi mu ngi lay. daa waru jënd. ndax am na. naa yaakaar ne tey boo leen fi ñëwee kenn lan moo xew parce que borom Dakar moo jéem borom Dakar lañ bëgg a jéemee dafa am lu ñu bëgg waa Dakar yàlla moo moom ñam mais ñeme nañ kaa ñam buñ daan defal ci dimanche di ko defal magu léegi ñu defal ko te ñoo ngi ñaan yàlla lu daaw mbay mii ñu doom joo ngi noonu kii nga dénk sa dëkk ak si la kon tey bëgguñu lu ñu mu booleet ñu lii nekk arène nationale pour nga xamante ni bés boobu yàlla bu defee bés boobu tey saa doo ñëw daal leneen li si demee ay détails dañuy mottali mais daal bés bi am na lu ñu bëgg wax waa Ndakaaru te dinañ teg seen bët incha allah ko samp bu lii weesoo bëgg nañu jéem teg juróom-ñaari ndam yoo xamante ne du laal suuf ci yooyu lañ nekk mais nekkuñu si Zarko dañ ko bëgg samp def ko mbëru Ndakaaru te Soumbédioune moo soxla te Soumbédioune bu soxlaa yaakaar naa tey jii ku fi ñëw lii xew nii yëpp boo ko gisee di nga xam ne li ñu daan defal mag ñi gaar rawante gi di ko def Ndakaaru du ko def bu ko daan tuusal ak daawur tey loolu la ñu bëgg wane ngir yeneen yi da waaw ñoo ngi liggéey tàmbalee ko si Zarko jëm ci kaw yàlla nag mooy maye ndam mais ni ñu daan sampee suñuy maam ñu nekkoon fi daan am ay combat komba Abdourax njaay maan Falang fii lañ ko daan sampee ah. Mbeex Ndoy fii lañ ko daan sampee mm. Souley Ndoy fii lañ ko daan sampee mm. kon tey buñ fi sampee jën war na mën a ne mm. l'essentiel li ñu bëgg bu ñu ko yàlla sunu borom defaree. jéen bëgg nañ mu am juróom-ñaari ndam yoo xamante ni du laal suuf. Zarko Dakar ko dugg. am na am na dugg. waaw ah, yàlla may ka ndam ci kaw Ada Fass. moo ngi doog a dugg Sumba Jun. Ah? waaw moo ngi doog a dugg Sumba Jun. te bëgg nañ tamit bu fi duggee mu yam fii. Mhm. duggam yam fii. Mhm. te ah, Zarko gaynde la. Zarko ndaanaan la Zarko mbërëntaan la jéen xam na bu baax ni am na kombaa am daja nax ku bari ñaan mais ñun suñu wareef mooy ñaanal suñu mbër waajal ko biñ ko war a waajee ba Zarko bu ñëwee ci bés bi xam ni gàjja la dajal lu ci des nag am na yoo xamante ni bët du ko gis làmmiñ du ko wax mais ñoo ngi ci ci mais daan Zarko fan la ko mën a yóbbu ci làmb moo tax mu jël ko waaw kon daal dimanche mën nañu xaar Diop attaqué duma daan ci kàttanu yàlla loolu la ñu bëgg tey am nañu yaakaar ni loolu loolooy nekk ah. waaw incha allah jërëjëf kon jërëjëf jërëjëf